kon li gën a rëy ci taqdis te mooy soril yàlla lu yelwut moom te mooy sellal ko la ci gën a rëy mooy nga soril nga sellal ko ci li mu sellal boppam mooy sorilal ko doom sorilal ko soxna soril ko aw askan sorilal ko it aji bokkaale kuy bokk moom ci dara ci nguur gi ci askan la sunu borom wax ni wa ja'alu baynahu wa bayna al jinnati nasaba ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون دا تيتني سبحان الله عما يصفون تدنا سلو يالا دا ديكوي سوري البوبام لول تي ملال بوبو نيكو ملال جال اسكان بودي تي دوم سونو بروم واخني وخاد الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا وخاد اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون baatub subhana boobu bi ñu tuddee doom moom la suñu borom andi ngir soreel ko boppam lépp lu yelwate moom muy doom aji bokkaale lu ci suñu borom wax mooy law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata daa ciy teg fa subhanallahi rabbil arsh fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun jaam bi ban cër la war a cëroo ci baatu turu alxudus la ci jëkk mooy mu sellal boppam mu fexe laabal boppam laabal biiram laabal bitteem ngir mu yelloo mën a toog ci jataayu yàlla fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir te nit ku ne nag dafa am audience ak borom nit ci boppam dafa am audience bu mu am ak borom te fokk dana teew ci kanam ndax yàlla ma wax ci alxuraan ni yaa ayuha al innaka kaadihun ila rabbika kaddahan fa mulaaqi nit ki dafay dox jën ci yàlla te faw mu daje ak yàlla war naa waajal daje googu ci sellal boppam ci kaw sellal ko ci biir ngir mu mën a am yi ngir mën a yaayoo daje ak yàlla tabaraka wa taala ndax kat nit ci buñ ko woon am nga audience ak président di suba na mu koy waajale ku ne xam na ne dana waajal aw yaramam dana waajal yére yi muy sol dana waajal sax baat ya mu war a wax ak moom ba du ci jóom du fa wax lu yëllawut ak kilifa ko gi kon nag waajal daje ak sunu borom tabaaraka wa taala ci noonu yi mu waxee ni fokk nga daje ak man moo gën a yàlla waajtaay yooyu doomu aadama bi di waaj ngir daje ko ak kilifa ak adduna moo tax sunu borom ci hadiisul xudsi mu wax ni sama jaam yow de setal nga setal nga lool li nit ñi xool ay ati at yaa ngi koy setal ngir nit ñi rek a tax nga di ko seetal mooy si jëmmi bopp ak sa yaramu bopp sa ci sa yére bopp ak sa kër bopp lu tee nga mën maa seetalal sama bérébu xoolukaay benn waxtu képp te bérébu xoolu yàlla mooy xol kon nit ki ni muy waajale aw yaramam ci set waajal ay yéreem waajal dëkkuwaay bi waajal béréb bi ngir di teeru gan gum fonk nan la war a waajale xolam ci defar ko ba mu set wecc ngir daje ak boromam tabaraka wa la